kon tey jii leneen lañ doon wax loolu tax nag ginnaaw bi ñu gisee ne même ay bërëbu liggéeyukaayu état bi bërëb yu yor kaaraange réew mi lu mel ne ay brigade de gendarmerie ay commissariat de police ñu dem di leen attaquer loolu lu bees la ci Sénégal ma nga si nii ñu attaqué leen yi ñu jël la fa newoon yëpp ci marsandiis yi ñu taal leen ba ñu jeex tàkk muy loo xam ne dana indiwaat jafe-jafe ci seeni borom ak ci boromu liggéeykat ak ña fa doon liggéey nit nag mën nga mer mën nga am say xalaat mën nga bañ a ànd ak liy dox ci réew mi waaye jàpp naa ne dara warul mën a tax ñu fexe ba deret di tuuru dara warul mun a tax ñu taal li nga xam ne ak yàq li nga xam ne ñun ñoo ko bokk ñun ñëpp liggéey depuis indépendance réew mi loolu tax ma gis taxawaayu kilifa diine yi rawatina xalif généraux yi maa ngi leen di sant di leen gërëm di am mbegte itam si ni nga xamante ne yónnee nañu ma ay ndaw muy délégation yu takku te ñaari fan yi ñu génn muy ñoom kilifa diine yi lu généraux yi muy kilifa aada yi muy waa jàngu bi église muy classe politique bi ba ci opposition bi ñenn si ñoom société civile syndicat yi ak patronat ñoom ñëpp si diiru ñaari fan yi déglu naa leen dégg naa leen itam message yi nga xam ne ñoom lañu ñu ma yónnee rawatina ci kilifa diine yi message la yoo xam ne mënuma ci bañ a wuyu ndax képp koy wut jàmm ci réew mi jàpp naa ne ki jiite réew mi ngay gën a wutal jàmm te lépp lu lu laal askanu senegal ak kommanti laal si lu metti ci man mi lay gën a metti moo tax li ñu ma ñaan di doxal jàmm fexe ba mbir yi ñu dox si ngir mu wàcc jàmm am ndax jàmm loo ko jëndee jar na ko lii rekk moo waral ñun ñu doxalee nii man mi nga xam ne nag man la yàlla jiit def ma jiite réew mi tey jii lépp luy sama kàttan ci nguur gi danaa ko def ngir jàmm jooju ñu ñaan dellu si si réew mi dal dellu si si réew mi ngir Sénégal lañu ko xamee woon démb ak barke démb muy réew moo xam ne réewu jàmm la réewu dal la réewu waxtaan la réewu démocratie la waaye réew la moo xam ne itam ah nit ñi même bu ñu bokkul ay xalaat daañu weccoo ay xalaat léeg sax ñu wax ba dënn yi tàng waaye nag li nga xam ne moom lañu bokk muy réew mi ak démocratie bi ak institution yi ah loolu waruñ ko yàq te kenn warul dugg si lu koy yàq maa ngi santaat di gërëmaat kilifa yi suñu réew nag yàlla moo ñu baaxee loolu ba tax na fu mbir yi jaxasoo bi xel yépp tiit kilifa yooyu daañu jóg waxtaan ak kenn ku ne waxtaan ak ñi yor nguur gi waxtaan ak ñi yor opposition waxtaan nag ñi nga xam ne xëy na ñoo yëkkati mbir mi ngir ñu xool ci yan anam la ñuy lijjante ba jàmm mën a dox leneen li tam xam naa ni am na ci réew mi ay jafe-jafe ci wàllu koom ndax àdduna bi yépp moo am jafe-jafe yi rawatina réew yii di réew Afrique ba ci senegal gii jafe-jafe yooyu nag li ko yokk depuis at a ngi nii mooy mbas mi mbas mi indi na ay gàllankoor ci njaboot gi ci économie bi ci liggéey ba kër këru liggéeyukaay yi ba ci ñu yor bi at a ngi nii kenn mënul dox li nga xam ne noonu la noonu lañ doon doxalee diine yi ci biir réew mi loolu it laal na ay këru liggéeyukaay yu bare bare ba tax ñenn ñu ñàkk nañu seen liggéey ci gàttal daal jafe-jafe yi gën naa tar depuis bi nga xamante ne lii mooy mbas mi dugg na ci réew mi moo tax may wax askan wi ne jafe-jafe yooyu nga xam ne yokku na ba ñu koy yëg ci biir kër yi di ko yëg ci quartier yi di koy yëg ci banlieue bi yëg naa ko dégg naa it li nga xam ne mooy façon bi nga xam ne moom lañu ko wone naam bi mu tàmbalee xam ngeen ne ci fàttali yëkkati woon naa benn fonds bu ñu tuddee force Covid 19 fonds boobu junni milliards atum daaw def nañ ko si ngir mu ñëw indi ndimbal si askan wi yéen a ngi fàttaliku ceeb yi ñu fi joxe woon nag lépp lu ñu indi woon ngir jàppale njaboot gi. andi itam ay ndimbal ci entreprise yi pour ñu bañ a dindi boroom liggéey yi andi ay ndimbal ba ci suñu doom yi nekk bitim réew ba ci artistes yi waaye xam naa ni loolu ñu defoon yépp ba fii doyul ndax jafe-jafe yaa ngi fi ba tey di gën a tar ci wàllu financement ndaw ñi juróom-benn fukki milliardaire joxe na ko waxtu bi may wax ak yéen financé lu ëpp téeméeri junni ak fukk ak juróom ci ay GIE ak i association ñeent fukki milliards ñu ngi koy def at bu ne ci wàllu formation ndaw ñi utal leen métier moo xam ne apprenti lañu wala ay métier yoo xam ne danañ leen ci forme suñu pare ñu ubbil leen ay bërëbu liggéeykaay financé leen waaye loolu yëpp gis naa ne doyul moo tax nag maa ngi wax ak yéen ndaw réew mi di leen xamal ni dégg naa bu baax seen yuuxu dégg naa bu baax seen mer ndax xam naa ni chômage bi metti na xam naa ni it ah seen xalaat yépp mooy noo leen di def ba tekki noo leen di def ba jàppale seen njaboot jàppale seen réew noo leen di def bi am xëy ndax ndaw boo gis bëgg na tekki jàppale boppam jàppale njabootam waaye jàppale réewam loolu nag moo waral ma bëgg ginnaaw li fi weesu yépp xamal leen ne dinaa def doxalin bu bees ci gouvernement bi ak budget bi ni ñu ko doon doxalee ndax tabax naam ay yoon ay autoroute yëpp am na solo tabax yi bërëbu fajukaay bërëbu jàngale am na solo waaye war nañu toppatoowaat lu ëpp liñ doon def ndaw ñi loolu jàngat la boo xam ne ala kuliyaalin ñu indi doxalin yu bees ci loolu kon nag yéen ndaw Sénégal su fekkee rek mbirum seen avenir la mbirum nuñ leen jàppale ba ngeen tekki da ngeen xam ne dinañu yokkaat si lu bëree bëree bëri danaa def programme bu bees boo xam ne dina tollu si ñetti téeméeri milliards ci ñetti at yi muy téeméeri milliards at mu ne luy ñëw fekk lépp lu daan def ngir ñu mën leen kuñ si former rek ubbil la nga financer la sa liggéey noo koy doxalee. loolu te itam ñu fexe ba circuit yi ak procédure yi du nekk yu jafe lool xam naa ne itam. couvre-feu bi andi na gàllankoor yu bëri si yenn liggéey yi ñu mel nu borom restaurant yi ñu yor hôtel yi ñu yor liggéeyu guddi yi ñu si bare bare bare mbir mi gàllankoor na la waaye nag boo gisee ñu def couvre-feu ci wàllu mbas mi dañu ne woon nañu sàmm dund doomu aadama yi naam koom bi am na solo waaye ku gis li faatu ci Sénégal bu ñu doxalewuloon ni amaan na mu gën fi metti lool ndax gis ngeen réew yi ñu ëpp doole fuuf réew mi ëpp doole si àdduna bi tey ëpp na juróom benn téeméeri junni si ay doomu aadama yu génn àdduna loolu nag jàpp naa ne xejul si suñu réew ma waraloon mettit yi ak couvre-feu yi waaye couvre-feu yooyu nag dinañ ko wàññi bés ni tey lii nga xam ne moo amoon ci région wu Ndakaaru ak région bu Thiès nga xam ne ñoom li ëpp ci liggéey ak këru liggéeyukaay yi si ñaari région yooyu la naam bu fekkee sax ne li ëpp aussi si jàngoro bi foofu la ne couvre-feu bi léegi dinañ ko toxal 9 si guddi ba minuit jëm 5 heures du matin loolu dina tax guddi gi ah yenn activités yi dana mën a jógaat kon mbokk yi li ma bëgg a waxaat mooy suñu réew mii ak réew boo gis léeg bu jafe-jafe bu mag amee lay tax réew ma mënal boppam mooy nit ñi boole seen bopp donte am nañu ay jafe-jafe seen biir ndax jafe-jafe du ñàkk ci àdduna boole seen bopp ba nga xam ne lii di li ñu bokk muy sunu gaal ñu fexe ba dara du ko yàq ndax réew mi nekkul rekk lu tëb am ay junni junni at a ngi fi mbokk yi bokk deret bokk diine diine yaa ngi fi nekk ci jàmm muy diine lislaam diine chrétien ki yeneen i diine protestant yi ak ñi nga xam ne sax ay animiste lañu ku ne nekk si li nga ne waaye terewul ñu bokk ndey bokk bàyyi te loolu Sénégal àdduna bi yëpp moo ko nawee Sénégal loolu nag dama jàpp ne waruñ ko yàq te man de sama kem kàttan fi ak maa ngi nekk ci bopp réew mi danaa def loo xam ne day dëgëral démocratie senegal day dëgëral souveraineté bu senegal day dëgëral itam jàmmoo ak mbokkoo ci diggante nit ñi mbokk senegal ci bés bii tey di juróom-ñetti fan ci weeru mars ngeen xam ne moom lañu jagleel jigéen ñi ci àdduna bi yépp maa ngi ñaan waa réew mi kenn ku ne fu mu mënta féete na dox ngir jàmm ji gën a sax ngir dal gën a am muy loo xam ne dañ koy def ngir jagleel ko suñu jigéenu réew maa ngi jeexal ci di santaat di gërëmaat ginnaaw ma sante suñu borom kilifa diine yi kilifa aada yi ñu nekk ci biir réew mi banqaas yépp yi nga xam ne dox nañu woote nañu te dara taxul lu dul jàmm am ci Sénégal Sénégal continuer yoon bi nga xam ne fi kon jërë ngeen jëf mbokk yi ñu fanaan ci jàmm